déglu ko. loolu mënul ñàkk comme li ma doon wax ci français rek dama ne ñun ñi man di wax ak yow ku ma xam-xam ne j'étais très engagé ci campagne bi nekk def naa deux mois yoo xam ne week-end bu nekk maa ngi sama sama sama mairie di liggéey di di di xeex pour que ñu def Amadou Ba cinquième président de la République suñu candidat. yaa ngi dëgg donc nu ma ko defee noonu la ko responsable yu bari defee engagé wu ci bu baax. léegi nag suñu demee ba situation bi demee nii am nañ certainement ñoo xamante ne euh, peut-être dañ ci am ay frustration mbaa d'accord ñu mais loolu yëpp dañ ko war a waxee en en famille waxtaan ci euh, nu mu tudd giifal xol yi. Euh, essayer de trouver en tout cas les voies et pour ñu apaiser pour faire en sorte que suñu candidat élection yi su jotee mu mën a gañe au la waa Amadou Ba xaw lu tax waxagul mais. xam naa ne dina wax mais li ma jàpp mooy ku xam Amadou Ba xam loyau loyauté bi nga xam ne am na ko ci président su xam naa ne Amadou Ba dina jël position soutenir président Macky Sall ci li ñuy def nii.